صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ديال سوار نان أجيان كيسين واج تاوي بني ماغل نك موي ماغل موي بس بينا خمني كلا قتادك قادم رسول génn woon fii ci réew mi waaye tamit tukki tukki bu sori lan moo waral lool liggéeyal yàlla waaye tamit roy sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa moom ma waxoon ne bu bés bi dellisee dee ma ko santale sama boroom ndax lu ma am ci laa ko am moom mooy màggal Tuubaa kon yow mi nga xam ne yaa ngi waaj di dem magal tuba war nga xam lan moy magal waye tamit ban anam ngay demé tuba waye tamit yoon wi ngay rom nan ngay jëflanté ak julit ñi bo àggee tamit nan ngay jëflanté ak wormal dëkk ba ak ñi nga xam ñoo nekk dëkk ba ba bi ngay ñibisi mu melni ki nga xam ne wax na ne day magali wala fas na yéene magali li nga xam ne moom la njëkk war a bàyyi xel mooy ndax alal ji nga xam ne moom lay yóbbu leew na naka jëkk alal moom dafa mas di war di lew njëkke ko ci paas bi nga xam njëkkee ko ci paas bi nga xam ne moom nga war a paas dem màggal na nekk paas bu lew ndax nag moom mooy tax tuyaaba ji nga xam ne moom ngay sàkk ko ji tuuba nga am tuyaaba jooje ndax nit nit kat mën naa sonn ci mbir lool fekk du ca am tuyaaba yàlla ci yàlla musal paas bi nga xam ne moom ngay paase màggal tuuba dafa bari ay façon ci ni koy amee am na ci ñoo xam ne nii dañuy sàcc ngir boo waxee ñu ne ngir dajale paasu màggal am na ñoo xam ne nii dañuy agressé am na ñoo xam ne nii dañuy ger am na ñoo xam ne nii dañuy triande am na ñoo xam ne nii ñu baal ma dañuy dem sax joxe ji seen bopp ngir rek am loo xam ne moom lañuy yóbbu màggal lañ wax façon bu ñu koy ute pour Touba waaye am na ñoo xam ne nii nag ñoom luñ amul rek seen ngor may na leen ñu taxawlu ca loola ñoom dañ koy sàkk ba am ko ci anam yi nga xam ne noonu la gënee te ki nga xam ne nag moo woote màggal ga nim ko wote mooy bëgg ñëpp jariñu kon lim bëgg mooy képp koo xam ni man nga dem man ngaa dem màggali ndax jamono Sëñ Fallou ci wote magal màggal ga Touba ndax bu njëkkoon kenn ku ci nekk nag fa nga nekkaat dañ ko daan defe kon buñ ko wootee Touba tamit pour ñu dajaloo xol yëpp ànd ben benn di jàppale te dimbalante di jang alquran di durus ci xasida di liggey di dimbalante ndax ñu xam ne xol yëpp benn comme nañuy dajee màkk rek kon ginnaaw loolu moom la ku tedd ki bëgg muy xaadim rasul kon yow mi nga xam ne yaay dem tamit alal yi nga xam ne yaa ngi ko yóbbu wala paas ba nga ko yóbbu la nekk lu lew waaw boo mënee ñaan nga ñaan paas ñu may la loolu dara nekku ci soo mënee liggéey kasaalik nga am paas baax na loo mën a def loo xam ne daal leer na la dërëm bii lew na loolu moo baax moom moo gën su ko defee noonu lañuy waajale màggal waaye tamit noon la ñuy utee paasu màggal waaye dagg poosi jàmbur yi wala ngay agressé wala ngay fen wala ngay sàcc naan mankat kat paas laa bëgg su boobaa loolee nga am wala loolee ngay paase doo ci am tuyaaba te ki nga xam ne moom moo woote woote ba bëggee ko noonu soo amee demal boo ñàkkee muñal ëllëg yàlla la mën na laa may paas nga dem su ko defee yiw sew la yoo xam ne nii dañ ko war di bàyyi xel. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأرجو رجوعي ذا وفاء وإحساني لقد سرت عبد الله بالله وحده